Kër Mousse. Kër Mousse Moustapha Ndiaye maa ngi koy nuyu de passage. ok Kër Mousse euh, poste Thiès waaw poste sanction la. ok euh, caporal allez-y ñi nga xam ne dañ doon liggéey jaare la ko yoon dañ leen. wekk allez-y caporal Lamine Badara ak le chamboulement mais ma ci affaire moo. tax àndoo ci chamboulement. affectation moo am. très bi du chamboulement ma al temps de chamboulement. exemple tey nga jël. au temps de changement nga ne ma du nga jël général Kandé. affecté ko New Delhi gars yi def ko benn grande affaire bu mag warul dem fii lu tax mu dem fii pourtant dafa war a dem dans la police nationale ñaata nit lañ ko affecté gars yi doon joué sale coup ci nguuru Macky Sall ñëpp tëbal nañ leen hmm. yéen lu tax doon gëstu loolu dama bëgg ngeen di gëstu ci force de défense yi parce que ñoom bu leen de dépolitisé wul rek bu leen bu dépolitisé wul les forces de défense et sécurité mën nañoo taal réew mi suba ak administration. parce que général bu fekkee Macky Sall la àndal collègue ba topp ci ginnaaw ko ne àndal ci taal réew mi lañ jëm kon nañ leen génne. ci force de défense yi. Mhm. force de défense et de sécurité yi ñu bañ tee mën a voté affaire Fulbert Sambou affaire Didier Badji affaire suñu sept cinq militaires yooyu confirmé ko da cee ci affaire politique il faut ñu dépolitiser l' ñaata nit nga gis ci ñu rajo rajo leen ci poste ci def profil Ousmane Sonko dama ci information. même militaire bi génnoon fii rek. taxaw pour calmer. Kanté day na calmer ñu libéré ko moo tax je demande à à monsieur le président Diomaye solennellement mu réintégrer Kanté le soldat Kanté la mu réintégrer ko dans l' armée parce que il n'a rien fait il a calmé une foule en liesse ñoo xam dañoo bëggoon a ñëw bu noon Ousmane Sonko mandat de dépôt ñu taal Sénégal loolu booy soxla moom loolu moo bëri ñoom moo leen calmé ñu jàpp ko libéré parce que Kanté la sant dëkk Casamance ñu ne Ousmane Sonko moo tax may demandé le président de la République ak le ministre des forces armées ñu réintégré ko parce que deux ans la matul sax deux ans tegal la leneen li euh, sëñ ba sëñ sëñ Alioune Badara lambar lambar sëñ lambar lambar na nga ko tuddee yow daam boo ko tuddee sëñ lambar lambar du rëgg sëñ lambar lambar war na jox exemple ñëpp képp kuy administrateur civil. caporal boo fi géej waaye dañuy ñëw sax. war na jox exemple ñëpp képp kuy administrateur civil. caporal mbaa doo fi géej. <laughs> non dañuy ñëw sax waa léegi. suñ léegi war na jox exemple ñëpp. sànq yaa ngi wax le le le le sous préfet bi nekkoon Pikine. daagu daan mooy mooy ki ngay félicité. waaw Moustapha Ndiaye Moustapha ak ak booy bi nekk sëñ Abdou Khadre bi nekk Pikine bi nekk Géej bi nekk Rufisque ñu koy félicité tey kooku bu nekkoon ci palaasu lambar lambar du def ni lambar lambar du lambar lambar waaw du lambar lambar mu bëggoon rek mooy mu yóbbu ko section mu yóbbu ko mu génne ko réew mi lambar lambar moo tax lu mu ci am bi mu dajeeg Ousmane Sonko euh, fële nu mu tudd de parce que mooy accueillir Ousmane Sonko buruxluwul de mais te bëgg dem yaa ne yaa ne yaa ne yaa ne. mais loolu loolu la yàlla de def loolu la yàlla di def. kon man dama jàpp ni. daa joxoon ay kii rek képp ku ci jox post képp ku ñu ci jox poste. na nga jublu sa réew. te nga am. matricule de solde. <coughs> waaw man sama matricule de solde avant ñu may rajo armée 414 615 C la. ah <laughs> man 19 ans laa nekk fonctionnaire de l' état ngu Macky Sall moo ma rajo ci sama bët bu yàqu te du hôpital ñu dàq ma ci armée ba léegi 2016 2016 ba 2024 8 ans moo tax ma dugg ci politique de. ñu ma dàq dootuma nangu ñu koy dàq keneen. Hmm. ku képp ku am matricule de solde. moo tax boo xoolee les secrétaires les secrétaires dans les ministères là ñoom ñëpp dañoo am secrétaires généraux ñëpp dañoo am matricule de solde. Ah, c'est des fonctionnaires de l'État ouais. quand tu es fay président man man mi nga xam ne samay taxe samay impôt jël pour fay président yow ci loolu lan lay fayee xamal ni président mën naa dem moo tax Ousmane Sonko daan lay wax ne leen yéen ñi def le sale coup pour Macky Sall suba Macky Sall mën na dem ba fii comme lambar lambar il est petit instant bi nii bu ko neex bu moom moom bu nekkoon dàq na la sax moo koy gënal kon gëwuma chamboulement li ma gëm mooy affectation il faut ñu xool nag ñi nga xam ne dañoo gën a jege ci nguuru Macky sàll gën cee nekk des gens du système. Mhm. gën cee. ñu effacé leen. ok ñu bëgg du nekk bàyyi. il faut ñu wan aux autres pour les montrer l' exemple que ni ëllëg ni ku fi toog def comme lambar lambar ak lëfër dernier ponk bi nag mooy euh, mbirum protocole de Cap Manuel wala. Kër Mbaye protocole de. dem naka nga jàngatee sortie bu gaaw. protocole de Kër Mor Ndiaye moo am. non yàgg nga ñu sonal lakk ay. dama ne dama ne dama ne mais expliquer les Sénégalais ñu xam qu'est-ce qui s'est aussi. mon caporal saa yu expliqué ma expliqué. mais moom wax na nee na. waxul dara lu leer. teelu bàyyi soogi la wax teelu bàyyi soogi lépp la. mais na ko na ko procureur woo mu ne dama ne saa yu expliqué li xew soogi ma expliqué li xew kër Mor Ndiaye ak la ci li ci li ci xew la ca topp le 3 mars 2024 la ca topp ak la ca toppaat. mais Camara Camara tey dañuy wax lan moo xew Camara bugaan non bugaan bu mu ñu sonal bugaan mënul yàq ay nit topp la. daw a daw a daw a daw bu bëgg a dee pour dégager Macky Sall nga ne doo ko dégager. système bi nga nee na protocole bee tax waxtaan bi moo tax. waxtaan bee tax protocole Kër Mor Ndiaye bi. waay du protocole Kër Momar Kër Kër Teeru Baye Sow bi. Bougane Amadou Ba la voté. ah bu ah bu doon voté Sonko jàppale kat. kan ay ñoom voté nañ Diomaye. ne comme ba mu ñañam ya voté Diomaye ñoom ñoo dem voté Diomaye. li mu comprendre wul moom. moo leen libéré li mu déedéet. avant muy libéré moom rek fa des <laughs> barke sëñ Fallou avant muy libéré ki ma lay wax sànq ne la El Mourou Ndaw. avant muy libéré moom kenn moo fa des moom rek moo fa des. ki ma lay wax sànq naa la ah, El Mourou Ndaw. mais comme sa bopp ëpp na loolu El Mourou Ndaw c'était le coordonnateur nation le coordonnateur régional de Kaffrine bàyyi na moo ki jox woon dix mille parrainage. Hmm. bana des original bana <laughs> man bana sanu booy sanu. waaw banaa booy salu booy salu booy salu xoolal booy salu salu superviseur la woon waxoon gëm sama balaa bu ko jàppkaan mu am lu ma jaar ma dem ba dernier moment gis tuma ko ma baax kañ nga waay non kii ba mu ne na ma ne ko jomaay a ne naa ma ne ko grand man dem naa de parce que du ma nekk 2006 ñu dàq ma ci armée moom mu duggul politique mais nag caporal moom ah. il insiste beaucoup sur le protocole Mor Ndiaye Ba ginnaaw Thiès la nekk. responsable lu fa xew. responsable bu Benno Bokk Yaakaar moo fa am kër gu mag am fa tool. kana kana fa dajeewoon. na ah Amadou Ba xaritam la de. kat kat bu baax dama ne la sanu booy sanu ñu yor mu nekk li ma damaa gis mu génne benn montre ne montre bi mën nañ ci garanti kër. waaw mais loolu métti ma montre bi métti ma de xaalis sam la mais sanu superviseur bu mouvement gëm sa bopp loolu mbuur. Euh. bu gaan jël moto jox ko. Sanu di ko ramasser ay parrainage ba accidenté tànk bi dagg damm ñetti fracture triple fracture Bougane envoyé ko cinquante mille. c'est cinquante mille. envoyé ko cinquante mille seetiwu ko ba tey ba pare fenn mois mu dagg salaire trois mois booy mun a am salaire nga demee montre bi ngay takk quarante mille mën na garantir kër. Bougane lu mu la wax loolu boppam la gëm la la mu doon wax dem ci télé bi seetaan du ma ko de bu leen su ma dama xam ni sunk fa mu tolloon fa mu tolloon Macky Sall na ko nañu reporté élection yi Sonko bu ko neexoon bokk foofu Sonko tolloon bu fa bëggaan tolloon bëggaan daan reporté parce que mu ngi doon dox ci report yi moom. lettre bi ñuy audience nee na sax président président sàkkoon pour gis ko moom moom. lettre audience dama ne. lettre audience bi candidat rekale yi demoon moom signé na ko. moom bëggaan waaw lu tax demul du question sama yaay jàngale nga ñu de déedéet da ngeen a tëgg woon deel feeñal leen moom mu ci suuf. xoolal sanu superviseur bu lay liggéeyal ay accidenté nga envoyé ko 100000 dagg salaire am ba pare nga taxaw ne montre 40000 ka maa ngi mën naa garanti kër man loolu su ma ko déggee sama fenn maa. Cheikh Yérim sax nee na protocole am na. dama ne Cheikh Yérim moo wax dëgg mooy bin bin sëñ bin wala be wala fer wala wala bette bette. daa di Yérim bu mu ñu fontoo. Yérim waxoon na ni Sonko du nekk candidat ku ànd ak Sonko du nekk candidat Pastef du nekk candidat Pastef du nekk président ci réew mi Yérim wax ko woon démb ñoom ñu xëy nekk président. ok nga war a gëm gëm ni tous ces gens là il trois formes d'opposition dans ce pays là il y a les de gargote moom ñoo yërëm ñoom yërëm ne sont plus des journalistes ñoom yërëm ñoom Madiambal Diagne c'est des rats de gargote il y a ce les flemmards mooy ñoom Idriss Seck ñoom Khalifa Sall consort il y a une autre opposition de femmelettes mooy ñoom ñi nga ma tudd seen tur. jërëjëf c'est des femmelettes. jërëjëf merci beaucoup euh, yow bu fi diggee jiwaay del ñëw tous les jours. c'est des femmelettes vraiment. ki nga ko wax. oui pour opposé Ousmane Sonko moo tax nga dem fekk Mouhamed Seneweb mi nga xam te ne saaga Sonko rek la mën. nga yëg ko ah, recruté ah, ah, non c'est vrai. ah nga jël ko indi ko sa télé. tey nga ni Ousmane Sonko ak Macky Sall bu doon xeex damay wutlu yat ñàkk Macky Sall ba mu tëdd laa Sonko loo jot ak Macky doomu Sonko ak doomu Macky Sall di xeex nga jël doomu Macky Sall na ko deuxième tour yow laa jàppale ak la ci suuf ak la ci suuf bu waxee ci protocole moo wax lu gën a garaaw ci Sénégal nit ñi dégg ko. jërëjëf merci beaucoup euh, Cheikh Omar peut sa jàngat par rapport ak euh, keneen gis naa sax Jeune Afrique def na ci benn article euh, cité ay nit yu ne ñooñu ñoo ci dox ay tànk jàmm ba gisee am na et cetera et ba am na lu ñuy waxtaanee tënk et cetera démb nag bugaat ñëwaat na ci protocole beeg wàllu montre et tout. loolu amul kër Ah. waaja le 3 avril la fa ñëw. le 3 mars. waaw mais nu mu tudd. Ah, xaaral <laughs> waaja le 3 mars la fa ñëw. waaye tàng na de. waaja ba mu ñëw 3 mars. waaw man nekk responsable. Ah, waaw ba ne diw xam nañ waajoo. waaw mais doo xaaral rek. bamb day dem foofu nga xam. waaye léegi ñun. waaye doo ñu ko wax. <laughs> léegi yow man responsable. xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral te rejoindre Macky Sall. am kër kër Mor Ndiaye ñëw na fa le 3 mars. ci guddi loolu xaral rek ñëw na fa xaral. doo wax tur bi ne wax nañ turam. may naa la sama temps de parole. <laughs> ñëw nañ <laughs> fa ñëw nañ fa xoolal fi xoolal fi ñëw nañ fa. ñëw na fa wax ak moom génn dem waa ji génn dem sans garde corps ñëw la kat waa ji ñëwaat la kat am na lu mu yore ba jox ko waaja. donc loolu mooy protocole de. de kër Mor Ndiaye. lu tax jàppalewul kenn. lu yor malet dama ne xam na ko laaj ko. invité ko fi waxee ci kër so teenu bàyyi sooy bi nga xam Ousmane Sonko wax na ci lu leer nañ Macky Sall yónni na yónni na di baax ak waa ji beneen kekkan ak bañ a dugg ak bañ a dugg ñu waxtaan ñu xam ni réew mi Macky Sall xam na ne xalaa kulli xaal Macky Sall jun Macky Sall xamoon nga xalaa kulli xaal premier tour la benn gradé de l'armée moo ñu ko sawaay demal nga génne booy yi sinon boo leen génnewul dañ lay remplacer dugal la ci biir dootoo ma ci bàyyi. jërëjëf merci. mais boo bëggee ñëw di def ay ay ay ay ay dóor marto yoo xamante ne li ngay wax. oui man mii sama bopp di la seetaan xam naa ni gëmoo ko. jërëjëf merci Kabara nañu merci Kabara nañu xeexal parce que dañoo am ay devoir xeexal askan wi nañu bàyyi di bë nañu bàyyi di nax askan wi quand tu les vois dañuy yaakaar ni. jërëjëf merci. kii nee na ci émission wax li mu wax nga ne noo waroo wax li waxal kii. ana oto ba. an sa oto yow amatu oto. non man sama oto man maa ko moom. na mu daa réer. daa paan ah, dinaa amaat beneen léegi. kii war na soog a amatu. dinaa amaat beneen ngay liggéey nit 18 ans 18 ans ngay liggéey nit. ngay. caporal nga ne ñoom ñooy war a jox réew mi xanaa ñu gasax. Euh, jërëjëf. waaw oui ci Cheikh Omar. Euh, très rapidement ñu. Euh, caporal xam nga nag man damaa démocrate. Ouais. et puis euh, c'est un mais ñu ñu dépassionné débat bi tuuti am na foo xam d'accord ma ci ak yow te du ma <laughs> ku nekk am nga sañ-sañ. nous sommes dans le jeu démocratique. oui Macky Sall principal erreur am moo doon bañ wujj ne bëggul opposition réduire simple expression donc euh, ñu nekk ci nguur ak ñu nekk ci opposition ñëpp ay sénégalais lañ. munoo jàpp ni